mbokk yi ba tey euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen toppal ñi nga xamante ni tey bokk nañ ci ñu ŋànk làmb ñu toog ak kenn wala ñu taxaw kenn koo xamante ni euh, ñu bari ci làmb duñ leen ko présenté muy Père Mbaye Diaw président euh, CNG bu Diourbel nga xamante ni làmb gis ngeen ni mu mel Diourbel gis ngeen làmb jéego yi nga xamante ni mu ngi koy def biir Diourbel tey mu ñëw fii duñ ko laaj lu mu fiy wut waaye dinañ ko laaj nan la gisee li nga xamante ni mooy demu président Alioune ak ñëw ki nga xamante ni mooy Bira Sène Père Mbaye maa lay nuyu. jërëjëf eh, eh, di leen nuyu di nuyu le monde sportif ak ñi nga xam waa làmb yëpp. Eh, dem Alioune Sarr yàlla lu mu jeexal mu jeex. bakkan sax da yàlla da koy jeexal. bakkan sax yàlla da koy jeexal. lu jeex mu jeex. def na waru garam. 94 mm-hmm. ba léegi 26 ans la. Mm-hmm. il tout fait. Mm-hmm. pour que làmb yi dem kanam. dëgg làmb yi ku iñaanu. Hmm. soxoroo. Hmm. farfarloo. Hmm. xam ne làmb ji dox la. jëlee na ko foo xam ni benn na ko foo xam ni. li ci des mooy comme ni ko ministre waxee léegi. Alioune Sarr indi na ko ba fii. Bira Sène mi ko remplacé daa war a yokk. waaye waxuñu mu ne yow fi Alioune Sarr war a yem. caax bir bir na ma dana yokk. parce que euh, neex naa waxal. man sama rakk du def dara ca waxut man du def dara ca woowu ma lu fi musaana am danaa mbay lii nag nii noo ko gisee noo ko gisee ma ne def nii def nii def nii muy d'accord ñu soog a ñëw dugg eh. di ñaan waa Dakar rek waa région Sénégal gépp ñu ñëw bootu ci ginnaawam ànd ak moom liggéey pour lamb ji dem kanam la weesu weesu na. nan na ba ci nan dellu gi nan nan jéem a jëm kanam waaye bu suñu xel nekk mukk ci ngiiroo ngaayoo ngaayoo ba dara dox e eh, nañu ñëpp ñëw jàpp na promoteur yi jàpp ménager yi jàpp lutteurs yi jàpp administration bi jàpp ministre bi jàpp ba ñëpp def kanam lamb rek li koy doxal mooy CNG dañ ko war a dimbali mm. état bi da ko war a dimbali mm. jox kay moyen ñi def ci lépp lépp la ko war a dimbale. ñu ngi dimbali kii eh, nu ma nu ma ko waxati football bi mi ay ay ay ay la di jox football bi ay centaine million donc lamb ji lamb mooy cosaan bi. war euh, ministre bi war naa tuddee ak président pour ñu dimbali ko hmm. yaakaar naa équipe bi gis naa ñoo xam ni war na noo mën a dimbali ji ci ay moyen hmm. am na ñu ma ci xam du ma wax ay tur kii ma waaye waaye war na noo mën a dimbali làmb ji hmm. parce que yaa ils ont des potentialités parce que am na it yoo xam ne responsabilité yoo xam ni euh, yendoon ko ci réew mi war na noo mën a taxaw làmb ji ba làmb ji yëpp dimbali écurie yi dimbali ménager yi dimbali entraîneur yi lép ministre sport bi dina ko war a ñu ngi dimbali ñëpp nañ dimbali làmb ji lamb ji dem dem kanam dimbali promoteur yi léegi la promoteur yi dañuy tëgg di perte et puis les les kii laa sponsors yi ñëwaat comme ni naa bi ni ni meloon ñoo jàpp ci làmb ji làmb ji dem fu mu waroon a dem loolu moom suñ ko defee lamb ji dina dem kanam di souhaiter rek équipe bu bees bi ak comité directeur bépp ah yàlla yàlla eh, yàlla mi leen jox ndombay tànk yi yàlla mi nga xam ministre bi ñoom la tànn ba teg ko fi pour ñu jiital làmb yi yàlla leen yàlla dimbali ba làmb yi ñoom fu ñu bëgg a àgg àgg. parce que lamb am na ñoo xam ni dañuy sonn ci làmb man sama CRG gars yi liggéeykat lañu un gars comme Étienne liggéeykat la ak ak amoon na Étienne Ngom ak sama ñaari ñoo xam ñooy nekkoon samay adjoint gaañu muy daam si la ak ak ak kii yàlla na yàlla a àjjana ak Bourama Fall yàlla na yàlla tax a àjjana hmm. ñoo ñëpp il faut ñu ñoo xam nit daan ñoom mën a jël seen i place ah euh, pour remplacer leen pour ñoom ñu góorgóorlu parce que làmb ji il dem kanam làmb mënutu la dellu ginnaaw ci kanam gi la mën a jëm waaye mënutu la dellu ak moment bi ñu toll moom kuy wax na wax làmb ji dem kanam di di ñaan waa Njaañ gépp muy écurie di ménager di entraîneur yi ñëpp ñu ñëw jàpp ci làmb ji ñëpp bokk ndee bàyyi ay xiiroo ngaayoo amul njariñ loo ji jeex tey dañ leen tudd tey suba yàlla yóbbu waaw da xam ku ci mel ni daam si la ñu naan sonn ci làmb ak bu naama faal koo nga xam ni daa ay nit ñu baax la du di liggéey liggéey bu rafet ci làmb ji vraiment maa ngi leen di ñaan yàlla yàlla xaral leen ne di gërëm it inspecteur Seck bi fi rek ku baax la ku mën a déglu day day déglu day déglu ay wax day déglu ñëw di wax parce que il est ouvert ubbi buntam ubbil na ko ñëpp ku ñu wax mu déglu si dee lu baax mu jël si dee lu bon mu jàpp ñàmburam ah di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen sant yéen it vraiment yéen a ngi def seen liggéey soo ba tey yéen a ngi fi góor góorgóorlu di kii ah yàlla baax na rek yàlla léppay baax. jërëjëf si mu taxaa dana defal lépp. ndeysaan jërëjëf si mu taxaa dana defal lépp. jërëjëf barke si mu taxaa.